السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الله وتنميه وقت على المودس على إنه يدعو سيارة تجربة نيرو المفق السوفي من كل من كل سيارة من الوصفة توصف القيسر من الومن المغيب من سقط من دون نعم. دون لاج من دون دف ak wasi fa yeeg ndax yi daal nit ñi nga doxale di jëm ci la ilaha illa allah ñu bëggoon a xam daal la ilaha illa allah man na wala la ilaha illa allah fan lañ ci gën a taamu bu koy bu koy wax ndax comme ni alquran wax وكذلك فإنك تنصر المؤمن ak itam fasalu am itam laa tax na moom yaakaar ñaari ay si doon jëfandikoo rek xanaa dinañu jëriñu ñëpp <clears throat> wax dëgg yàlla comme ni Alaaji Adama waxee buñ laajee rek xam euh, tontu yi dañ ci xam ne oh, ndax sëñ si di laaj ab démbam bi wax dëgg yàlla jëriñ nañ ci jëriñ nañ ci bu baax a baax a baax mooy laajee ne maanaam taalib bi tijaan bi euh, njëriñ yi wax ci tariqa bi naka lay mën a comme ban comportement lay am ba mën a am njëriñ loolu wax dëgg yàlla suma kawal bi ci bëri jël wird bi rek jël naa wird bi rek nga xam ne noonu neexee jël daa noonu neexee ba ci saa noonu neexee ba yoo defee nag lu tax nga jot lañ ci war a jot kon nag comme ni ko sëriñ bi tontoo ni ñu ko leeralee am na solo trop ñu koy sant ñu koy gërëm wax dëgg yàlla taxawaayam ak ñu xam-xam bu leer bi wax dëgg yàlla eh, daal am na solo bu baax a baax a baax am na solo bu baax a baax a baax loolu daal lañ bëgg daal ku ñu gën a leer daal ci eh, wàllu laa ilaha illa allah daal ni ko ni ñu koy waxee daal dëgg-dëgg ci adresse jumaa yeeg eh, wasifa yi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

ci suñu kéemtalaay kàttan incha allah Serigne Modou Mbaye ñu leen nuyu di la ziar laaj bu am solo bi nga laaj waaye nag dafa am ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi seen xam-xam ci wàllum qiraat yi dafa am lu ñuy tuddee waqf ak wasla maanaam njàng moo xam ne da ngay taxaw ak njàng moo xam ne da ngay jokkale njàng mi lépp loo xam ne dañ ciy taxaw rek ci wàllum njàngin mun nañ ko maas sukuun lépp loo xam ne nag dañ koy jokkale lam doon dañuy jokkale maas bu mujj bi ak xaraf bi nga xam ne moo njëkk ci moo topp ci ci kawam masalan tey wax laa ilaha illa allah taxaw laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ci moom ki nga xam ne it kooku mooy ki nga xam ne dafay jàng baat bi di def ay waqafaat amaa nag ki nga xam ne dafay waxlu day wax laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu kooku tamit li ñu def wér na kon ñoom ñaar ñëpp li ñu def wér na duñu wax ni bii moo gën wala bële moo gën waaye ñoom ñaar ñëpp li ñu def wér na li am solo mooy ñu tudd xaraf yi niñ ko war a tuddee ba kuleen leen dégg rek xam ni tur baat baat bu kalima bu sell boobu moom lañuy ñuy tudd wallahu taala aalam asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi mañ moo bi seen bokkal alxaj moor moo jël si nii ñëpp siyaare ak ñëpp comme ni ko xajaade ma waxee comme suurute bi programme laaj ma amoon benn question boo xamante proposé ñëpp daal mu ci mën a jàppale waa jii dafa am un mois boo xamante ni wéetuwul wàccutuwul boo ko laajee dafa wax ne comme période bi ma toll nii amuma temps wasifa bi parce que ci biir quoi comme bi ma toll nii balaa muy am temps daanaka doon su ma koy fas <coughs> yi maa ngi ci leneen su ma xasee xëy daal daanaka presque bu jëlee wàcc su ma guddi bi jëree su ma wàcc bi ma damay sonn du ma terawu ci fa du ma terawu donc amu temps quoi ba mat un mois un mois yi daa presque eh, si biir ajum bu ko defee def may laaj kooku lan lay mbiram bëgg laa ñu daal ndax dafa nekk taale bu sàggan kese wala dafa dagg ci reer bi tarixa laaj ku wir bi wëj fo mois yu ma set daal nga xamante ni wir bi wëj fo boo waxee mu ne eh, seet yama téye comme ça voilà may laaj ci diwaa kooku bu demee ay mbiram ñu koy caabi bi kasra lay def ñu koy caabi bi te li def loolu mooy ajuma moom bu xasee julli jama bu noppi daanaka say la jël pour distance boobu donc jo daal diggante tisbaar ak timis moom bu xasee julli jama bu la jël pause wala sax dina yéex a may laaj daal kooku la mooy mbiram incha wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ alaaji lay nuyu di la ziara bu baax di am mbégte kontaan ci sa laaj waaw qabla kulli shay xam nga tariqa bi duñ ko forcer kenn jox kenn nit ki mooy toog ba gis ni moom kat war na koo jël mu dem ñaan ci ñu gaaral ko sart yi te sart yi bokk na ku ko jàpp bàyyi ko définitivement wala nga sàgganee ko yow dagg nga ci kon li ci njëkk mooy koy jël ci sa coobar faslante kóllëre ak sa borom faslante kóllëre ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam moom moom tarixa saflante kóllëre ak jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom la jox tariqa bi faslante kóllëre ak muqaddam bi la jox tariqa bi te jullit nag bokk na ci ay màndargaam saa yu fasee kóll saa yu dëxalante googu mu sàmm ni ko alquran waxee wa aw fuu bil loolu benn la ñaareel gi damay dem ci tool ya moo waral duma mën a wér du duma mën a wasifa am na ñoo xam ne bi bu set ñuy xëy di liggéey di gontu di liggéey guddi rek lañuy nekk seen biir kër ya te ñoom liggéey bi ñuy xëy di liggéey léeg-léeg dinañ génnee seen buntu kër six heures ngir teel a yegg fañ jëm ci seen liggéeyukaay buñ wàccee six heures ci ngoon balaa ñuy yegg seen seen kër daanaka vingt deux heures day jot te lépp luñ sartaanteeg seen boroom ci wàllu julli farata yi dinañ ko def lépp luñ sartaanteeg seen borom ci wàllu eh, eh, wérdi yeeg wazifa yi dinañ ko def kon nag taalibe boobu war naa gën a mën a góorgóorlu ba mën a def ay wirdam te du ko yàqal liggéeyam ci nag diineel islaam jëfewut noonu la tariqa bi yombe ki nga xam ne mënta sëy suba teel wirdu wirdu laazimam tariqa bi may nañ ko mu jiital wirdu laazim bi te bu jullee gee ba dara desul lu dul mu def laazim bu xëyee mën naa dem tool su wàccee ba julli tusubaar diggante boobu dina noppalu mën na faa def wazifaam su gontoo ba wàcc tàkkusaan ba wàcc timis ba julli timis ba pare ci diggante boobu mën na faa def wirdaak ngoonam ko defee wirdu bisam di jeex na lépp loo gis rek dañ koy noose dañ koy planifier kenn forcé wu la ne la suba teel ngay def wirdu suba bi kenn forcé wu la ne la wajifa bi ginnaaw ne la eh, eh, eh, wirdu ngoon bi ginnaaw jee rek ñu ko mën a def déedéet li am ba am mooy wirdu suba bi mën nañ ko jiital jiital ko ci guddi tay wasifa waxtu woo ko def ci biir bis bi baax na nga sàkkal waxtu wirdu ngoon bi loolu lu yomb la amaana ci nga xam ne lii moo ko dal ñun munuñ ko tuddee leneen lu dul tàggane tarixa bi man personnellement mun ma ko tuddee leneen lu dul tàggane tarixa bi léegi kooku su bëggee bokkaat ci tarixa bi faaw mu jëlaat ndigal maanaam faaw mu dem defi tajdiid ngir mën a continuer ay wirdam faaw mu mën a def dem defi tajdiid ngir mën a continuer ay démb rek dugal naa benn texte bu ma defoon démb ci wàllu xadratul jumaa boroom xam-xamu tariqa bi ku ci mel ni Cheikh Ahmad Abdullahi wax na sax ci xadratul jumaa ne képp koo xam ne danga ko daan dañ koy sàgganee teewee kooku njort nañ ci moom mu dagg ci tarixa bi booy teew tey suba doo teew yi tamit njort nañ nga dagg ci tarixa bi kon li war a am mooy nga góorgóorlu bu baax ci loolu ndax yàlla man laa dimbali nit nag mën naa góorgóorlu ba def ay planification yoo xam ne dina ci góorgóorlu ba def li mu ko war yëpp ci tarixa bi wallahu taala alam ayi di laaj it aw ma la fekk dina ko fay naka ko fay soo mooy bi salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi maa ngi di la jaar waaw kooku du wax ni dafa dagg définitivement ci tariqa bi waaye dafa sàggane tariqa bi bu bëggee continuer ay wirdem dafay def def tajdiid su defee tajdiid ba pare nag dafay fay dafay fay un mois boobu liñ koy fayee mooy saa yu yurdee yurdu laazimam bu tey mu teg ci benn fan benn yurdu laazim boo xam ne faatoon na ko ci fan weesu mu des noonu ak wazifa yi ba keroog muy mat weer bu ko defee fay na yurdu yi ba mat sëkk noonu la koy fayee wallahu taala alam asalaamaaleykum wa rahmatullah albayaan wa tayyib seen mbokk baax الإجابة فالأستاذ محمد ليل المفكر الصوفي استحواذ بأن صلب إذا لا فعله وأم بين الله بمر الله لكي صلاة الفاتحة نقول دي جدا حوم غلق دفع أم بنت السيد لكي ياري خد دفع السيد لكي وزن ياري خد نتي خد تحكي مرتبة الظاهر ومرتبة الباطن مرتبة الباطن الباطن Euh, yooyu daal laa bëggoon ku ma ko leeral ak martabatu zahir moom tamit dafa séddale ko ay xaaj ak martabatul baatin ku ko bëggoon a jëfandikoo da nga ci am ndigal wala doo ci am ndigal waaw bëggoon naa euh, bu nekk ni ñu euh, bu dee question bi leer la. waaleykum salaam wa wa barakaatu. سيدنا أحمد في سمعين لأنه يدل زيارة وباح بلا بقى فصلاة الفاتحة لما أغلق نفهم أي مراتب ده يونتو صلى الله عليه وسلم يخمني ممو جمو صلاة بوهو دفع أي مراتب ده يونتو دفع أم مرتبة بطون بطون رسول الله صلى الله عليه وسلم martaba yooyu nag daf ci am boo xam ne aw waahira lañ koy tuddee mooy martaba yu feeñ nga xam ne ci jàppul tariqa tijaan sax bu jàngee salaatul faatihi dina ci am yoon martaba zaahir mooy ñi nga xam ne ay xaas lañ góorgóorlu nañ ba sóobu ba am jaz bu ci péeb yàlla bi ba góorgóorlu wëlbatiku di jéema sóobuwaat ñoom njàngin biñ koy jàng mu tegu ci kaw ndigal dañ ci am yool wu ëpp yool yi amati naas di am ñetteelu martaba yi nag mooy martabatu al baatinul baatina mooy bi gën a sori te boobu xaasatul xaas yi ñoo koy jagoo benn bu ci nekk nag dafay laaj ndigal lu duut bu njëkk te kenn ku ci nekk ci sa tolluwaay ci nga toll rek ci ngay jàngee salaatul faatihi noonu nga ciy jëriñoo ndax mi ngi aju ci ndigal li ak ci yéene yi mi ngi aju ci ndigal bi ak ci yéene yi ak xam li nga xam ne moom ngay jàng ndax salaatul faatihi représenté wut lu duut martaba zahiru yonantu ak martaba baatinam ak martaba baatinu baatinam loolu lépp nag dafay daje ci téere wilaaya muy lu ama am solo loo xam ne mbóot yi ci nekk nag sët ci biñ nekk moo ma permettrewul ma di ci xuut xuus waaye lu am solo la wallahu taala alam asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh waa albayan wa tabyin maa ngi leen di nuyu leen siyaar yéen ñëpp suñ mbokk la alhaaji abdullahi si ci zakay moom maa ngi siyaar ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si góor bi maa ngi lay siyaara di la ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér gu yaram rawatina suñu ustaas bii de Alxasan Mbay maa ngi bu baax sa mbokk la Abdoulaye Cissé ci sa Kaymoor maa ngi lay siyaare bu baax a baax baax di la ñaanal warsagu yaatoo yaatu fan woo gudd waa ànd ak wér yaram maa la koy ñaanal yal nañu ko yàlla defal ñun ñëpp jaay si naa defal képp ku nekk ci groupe bi boole ko jaamu guñ nangoo yal na yàlla yokk la yàlla bal wàññeekoo di foo toll yàlla bu kenn wàññeeku ñun ñëpp yal nañ yokk ci jaay xëy wara sant nañ la gërëm nañ la ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax buñ la fàtte benn yoon ndax fàtte fooñu wax dëgg yàlla li ngay def ñu ngi koy gis waaw ñu ngi jëriñu sax xam bu baax a baax a baax lañ bële ci koy wa koy jàngale xam-xam daal yal na yàlla defal la ko ba defal la lu ci kowee da njorta bi jaay seen naa mat defal ko képp koy jàngale wa maa saalika alallaahi babi léegi nag ma doon laaj benn laaj boo xamante ne nii dafa xaaju si koo xamante ne nii euh, ka ko joxoon yutu dafa génn jamono léegi nag ndax moom yeesal gi mën naa toog ba heure bu ko neexee mu dem yeeslu ji wala si saa si laay dem ji ak itamit bu fekkente ne kam bëgg a yos kalam nekk pour mu yosloo ci dafa dafa nekk koo xam da koo sori ndax moom te jàppandiwut pour mu dem fa mën na koo woo téléphone pour yoslu wala il faut day dem ba ci moom bi ci tegee itam mooy ndax képp koo xamante ne nii mu xadamu tijaan la rek xaajo mën na mën na fee beeslu na du xaajo pour ñu naan kii la kii euh, waatiwaawan la ci waa Medina Baye la mm. wala il faut mu rek ci muqaddam boo xamante ne nii ak jokk la bokk rek moo koy mën a beesalal wala déet loolu daal laa bëggoon ko ma ci defal leeru incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu di Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di la ndokkeel waaw yeeslu forcé wuñ ci kenn ne ko da ngay déplacé dem ba fu waaja nekk nga mën a yos ci moom hmm, bu la yàlla maye nga mën ko bind leetar mu jot ko nga bind ko leetar sàkku ci moom mu yeesalal la bu la ci tontoo yeesal gi day wér te jamono jooju sax yeesu nañ ko fiñ toll nii sëriñ bi nga bëgg yeeslu ci moom bu dee mi ngi dund boo ko woowee téléphone ngir mu yeesalal la bu la yeesalalee ci téléphone bi dina wér lu ci suñu tegtal nag Mawlana Cheikh radiallahu anhu jox na digal ci tariqa yi bari ñoo xam ne gisewut ak ñoom ci ay lettre la jox na ci ay ijaaza ñoo xam ne gisewut ak ñoom ci ay lettre la kon tajjid ci lettre wala ci téléphone wala ci message loolu lu mën a nekk la kon du jar ngay toog ba mën a dem ca moom déedéet loolu benn la ñaareel bi mooy fi nga nekk bu fekkee muqaddamu Cheikh Tidiane radiallahu anhu bu ndigalam wér ma nga fa jarut ngay xaar pour dem ci keneen demal nga def tajdiid ci moom bu ko defee nga wéele sa tariq boo yàlla dogalee nga dem yëg ci sëriñ ba nga bëggoon a yeeslu nga yeeslu war rek yeeslu moom du doy du doy te duñ la wax boo ko defee dootoo ko defaat wallahu taala alam fa tabarakallah di ñëw rek tey di indi laaj boo xam ne dañu ko gaaral ñu ne nañ ko séddoo ñëpp fa tabarakallah yéen itam gaaral leen ko comme niñ ñu ko gaaral lee mooy nit a ngi nii fekk ñuy wasifa gannaaw timis dafa war ñëw rek directe bokk ci wasifa yi wala dafa war a julli ñaari ràkka jàkk soga ñëw bokk ak ñun wasifa yi dafa ñëw fekk ñu julli timis ba commencé wasifa waaye moom bi ñëwee dafa jaaxle nee na dafa war a ñëw bokk ak ñun wasifa yi wala dafa war a julli ñaari ràkka soga ñëw bokk ci wasifa yi loolu daal moo doon laaj bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa taala wa barakatuh sit ngi ñu lay nuyu di di kontaan ci laaj bi moom ñaari ràcce yooyu muy wax moom la ñu tuddee tahiyatul masjid nuyu jàkka ñaari ràcce yooyu ràccay sunna la am na yeneen ñaari ràkka nag yu bokkut ak ñaari ràkka yooyu mooy ñaari ràkka yi nga xam ne Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu digal na bépp Tijaan mu def ko ginnaaw julli timis ne bu ko faatee sax daf koy fayee juróom fukki salaatul faatih loolu mooy ñaari ràkka yi ngay teg ci ginnaaw julli timis amaa nag bu fekkee dafa jullee timis feneen ba ñëw ci jàkka ji fekk ñuy wasifa ndax mën naa julli ñaari ràkka wala day ñëw jokk ci mbooloo mi continuer wasifaam loolu ci moom la def masalan su ñëwee tey fekk jaami nekk ci jawharatul kamal xamul bu mujj la wala am na yu def te buy julli ñaari ràkka balaa ñoo pare am na njort ni jawharatul kamal boobu bu jeexee wasifa bi jeex te bu boobaa am mbooloo mi dafay bàyyi ñaari rakk yi jokk ci jawaratul kamal boobu continuer li nga xam ne moom mooy wasifaam ndax ñaare rakk yooyu sunna la naafila la te duñ ko fay te jokk ci mbooloom wasifa yi tamit sunna la boo xam ne yool wu rëy rëy rëy kon ala kullin loolu ci moom lay def su jullee ñaari rakk soo ci wasifa bi lam def wér na su bàyyee ñaari ràkk yi ñëw jokk ci wasifa bi tamit lam def wér na wallahu taala alam asalaamaaleykum wa rahmatullah yow ñu am benn laaj bi ñu bëggoon laaj rek mooy ndax te bu fekkee ne da nga jël tarixa ci benn muxaddam nga dem ba jëmi jamono muxaddam boobu dëddu àdduna ndax mu ngi yegg ci keneen euh, jàppee kooku muy sa sëriñ wala da ngay continuer ci ku njëkk mu nekk sëriñ loolu la bëgg nañ ci am ida ba insha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay nuyu ñu moom duñ ko def ci fudee baya duñ ko def ci ku waaye baya ci kuy dund lañ koy def yonent bi alayhi salaatu wassalaam dundam ak ñooyam Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu dundam ak deeyam ñooyam waaye keneen ku duwut ñoom dundam ak yamut loolu nag waxin la li ma bëgg wax mooy sëriñ bi nga dem mu jox la wird nga faslanteeg moom kóllëre keroog ba mu génnee àdduna la kóllëre googu maanaam baya boobu dagg faaw nga yeesal baya faaw nga ut keneen koo wóolu nga jaayanteeg moom ci ay xas waaye nag bayaa bu njëkk boobu duut ci ngay continuer waaye faaw ut foo yeeslu ngir continuer sa tariq ndax euh, bayaa moom duñ ko def lu duut ci kuy dund loolu moo waraloon Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu comme demee bay génn àdduna mu dajale ñeent ñi xam ne ñoo gënoon mag ci ay taalibeem kenn ku ci nekk mu jox leen digal ndax boo demee sax ci téere tariqa bi ñëpp wax nañ ko nga ndax mbóot moomu ñu ngi koy jëlee ci ku dund mu jëm ci ku dund kon loolu lu leer la te lu am ay texte yu koy firndeel la ci téere tariqa bi wallahu taala alam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen waa albayaan wa tabyin man la seen mbokk Adama Seck maa dellu si waat di am mbégte kontaan ci euh, xam-xam yu fi waaye ma amaat beneen laaj ci biir laaj yi ma ki nga xam ne dem na ba am ijaazatul itlaax ndax moom kook tamit te mu jëlee ko ku ku wér ndax kook tamit ki ko jox ci fi nekkatul dafay def day day laajaat taj bi wala déet dafay dafay war a delluwaat wala déet <coughs> wala képp koo xam ne jël ngeen di ci tariixa bi rek koo mën a doon kala ko jox ci fi nekkatul da nga war a def da nga war a dem delluwaat ci keneen wala dafa am spécial ñoo xam ne ñoo war a beex luwaat loolu daal laa laaj asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf waaleykum salaam wa wa barakaatu Seydi Cheikh Adama Seck maa ngi lay nuyu di la laaj laaj bu am solo nag tariqa bi ci nga xam ne jox nañ ko ijaazal itlaq ci ndigal te defut dara loo xam ne moo koy dagg mooy dagg digganteem ak tariqa bi kooku du jar mu yeesluwaat kooku bépp yeeslu bu mu defar rek daf koy def tabarrukan ngir barkeelu ci ci mu ndax ñi nga xam ni bokkoon nañ ci xaasatu xaas min ashaabi cheikh radiallahu anhu kuñ masaana ci muqaddam boo xam ne ci ñoom la bokk rek dinañ ci moom ngir def tabarruk ci ñoom kon loolu ñu ngi fi ñaareel bi mooy su fekkee kooku nga xam ne dafa amoon ijaazal itlaaq ci diggante bi def na ci ko dagg ci tariqa bi kooku moom taj diidam dafa war dafa war moom taj diidam dafa war moom kon kooku kenn du ko dafa war a def taj allah su tombelee yi sëriñam génn àdduna day def tajdiid ndax moom buumam dagg na ba pare amaa ki nga xam ne nag dafa nekk dañ ko jox ijaazal itlaq ci lu wér mu di ko soppandiku ci ni dara daggut ci moom kooku du laaj muy def li xam ne moom mooy tajdiid bu ko defee itamit ci koy def daf koy def tabarrukan ngir barkeloo ko jërë ngeen ഒരു വിമാനി ഉള്ളാക്കുകയാണ് മാഷാല്ല സർവ്വതുകൊണ്ട് മാഷാല്ല comme ko nga xamante ni dafa am ijaaza bu ndox ba pare nag du sare xal ndax ijaaza boobu koy perte wala day wéy di continuer ba léegi aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu déedéet kooku ijaazaam bi du ko perte ndax tajjid bi dañ koy yeesalaat ci bépp ndigal bu mu amoon ci tariqa bi rek dañ ko koy yeesalaat weesalaatal waaye nag ki ko ko mën a yeesal mooy ku am ijaazal itlaaq asalaamaaleykum wa rahmatullah al bayaan wa tàgg yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di ndokkeel waa kër gi yëpp ñu nuyu mbooloom ko xam ne rek xëy nga jaar ci kër gi ak ñi nga xam ne ñu ngi teewlu ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye ñu ngi jiital ci nuyu boobu kii di Cheikh Mouhamad Assane Mbaye di ko sant bu baax di ko gërëm ci coono bi di ko masaw ci ñi nga xam ne rek mu ngi koy àndeek ñun jamono bu ne eh, ngay sant ne rek bu yaafus bi daal ci ñun auditeurs yi waaye moom ñu joxe xam-xam moom jamono bu ne rek ñu sawar mu ngi kontaan di ko joxe ak yéene lool ñu koy sant bu baax daa iman ci loolu noonu di ko ci gërëm bu baax ñu amoon benn laaj rek buñ bëggoon a jàllale mooy laaj bi ñu ngi laaj ndax dafa am bàkkaar boo xam ne ni nit ki su ko defee daf koy dagg ci a tijaan wala déet maanaam bàkkaar boo xam ne euh, du ñàkk langin wala ñàkk wacci ko wala yu demee noonu waaye bàkkaar la boo xam ne rek nit ki def na ko ci xeetu bàkkaar yi ndax dafa am si boo xam ne ni soo ko defee rek automatiquement daf lay dagg ci tarixa bi wala déet loolu daal bëggoon lañ leer leerlu waa kay jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Seydi Baye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax di wax amin ci ñaan yi te di ñaan yàlla ñu ñëpp ñu bokk ko waaw bàkkaar buy génnee nit ci tariqa bi de amut lu dul benn te bàkkaar boobu du yem ci génnee la ci tariqa bi sax waaye daf lay génne waale ci lislaam te mooy bokkaale yàlla boo xam ne tuuboo nit ki mën naa jàpp tariqa def bàkkaar bu mënti doon ci bàkkaar yi bu ko tuubee yàlla jéggal ko wàññiwul dara ci tariqa waaye nag bokkaale ku ko def te tuuboo ko yow dagg nga ci lislaam te ku bokkut ci lislaam munoo bokk ci tariqa kon bàkkaar boo xam ne dafay dagg nit ci tariqa bi loolu amul aslan waaye bàkkaaru bokkaale boo déggee ñu koy wax képp ku ci nuur te tuuboo ko yow bokkatoo ci lislaam تكو بوكوت في الإسلام منو بوكوت تاريخ دي والله تعالى أعلى السلام عليكم البيان والتبيين حسين بوك أحمد بيسا ودل سواجهة الإجادة في أستاذ محمد الليل المفكر السوفي في ربوات أم صلبي ما شاء الله يلا يلا يلا يوقع خم خم يلا ليرا الدمير يلا بولا لك مخدم الشيخ يتبقى إن شاء الله عليه وسلم daa leen nangu dafa ñu dëgg-dëgg taalibe Cheikh nangu na si taalibe Cheikh barke bi sallallahu alayhi wa sallam waaw Oustaz Mouhamed ma ci dolli woon benn ci martabatu zahir bi martabatu zahir bi moom ñaata xaaj la ak bu dee maratib yooyu mën nañ koo am bu dee ci euh, ñaata xaaj la daal martabatu zahir yoo xam ne ci zahir yi la daal boobu ñoom ñaata xaaj la ak ku ko bëggoon a jëfandikoo da nga ciy am digal wala doo ci am digal waaw wala boo amee boo xamee boo xamee siyaxa yi rek mën nga ko jëfandikoo wala dañ la ciy jox ndigal ba pare waaleykum salaam wa rahmatullah si Ahmad Cissé waaw ci biir waahir bi am na ñetti martaba yi ci nekk mooy martaba bi nga xam ne amatu naas ñoo ci ndax boo taxawee rek ci ñooñ zaahir dañoo am ñetti degré maanaam ñu taxaw dañoo am ñetti degré mooy am amatul am xaas ak ñoom kenn ku ci nekk am na benn martaba ci salaatul fatiha masalan aam yi ci biir ahlu zahir mooy ñi nga xam ne dañoo dajeg salaatu bi rek jàng ko dañ ci am yoolu ku julli ci yonent bi xaas yi mooy ñi jug ngir soobu ci salaatu bi dañ am yoonu ku julli ci yonent bi waaye buñ ful lu ko dalee juróom ñaar fukk jëm Eh, ba ci ay juróom ñaar fukki junni junni junni amma ki nga xam ne nag dem na ba sóobu ci kooku ubbil ko buntu pour mu dugg ci xaas tamit mën na cee am yool wu mag kooku mooy xaasatul xaas ci ahlu zahir moom tamit mën na am yool juróom benn fukki xatmu comme ni nga xamee ni yool ak juróom benn fukki xatmu mooy njëlbeen batin wala ahlul xaas noonu lay demee allahu taala alam